بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاً وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين العليم كأمثال من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إخوة الإيمان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 nañu ko yalla, yalla ndax yalla rek moñu ko mëna jox alhamdulillahi rabbil alamin kon mu ngi melni liñ doon xaar diko wajal aksina tay moy nga xamné ne rek lañuy ñuy ngeureumam ci organiser biñ koy organiser colonie bi nga xam ne benn yoon la pour ñun pour dajale jullit yi dajale doomu jullit yi def ci ñoom li nga xam ne moom lañu yàlla dénk mu bari mu néew te ñu ko cay sant ndax yàlla daraam du néew lu jëm ci jaam lépp lu mu jox jaam rek mu bari mu néew jaam bi war na ko ndax amna na ku ko bëgg ta amuko ta mom mim ko jox defalul yalla dara ci lancer boobu lañu nek ren moy suñu 9e édition ah kuréel bi mu ngi juddoo Senelec gi di fi màggee bëgg si yàlla tey bii ma ànd ceeg ay way yu déterminé wu yoo xam ne depuis ñu commencé colonie bi ca yeen ba bés yàlla tey bi ñoo ko ànd di ko doxal enseignant yi ma daan jël kenn changé gut ci staff bi ma daan àndat itam ba tey ñoom lay àndat parents yu bari itam ba léegi ñu ngi ànd ak man di jàpp ci colonie bi

man nga dund ci ben ben district wala dund ci ben communauté rurale ba xey magat ba xey génn aduna do génn ci benen communauté rurale dem ca ndax booba jokkaloo amul tay nak avec les découvertes scientifiques aduna bi sax dañ daan wax ben village planétaire la mais bo tudé booyee boo sax tuddee ko ben maison ndax lu xew rek mënoo ci mucc cioli yi ci mucc xew-xew yi mëno ci mucc parce que nga bëgg ko nga bañ ko dañ koy andi ba ci sa kër andi ko ba ci sa par force nga jël ko mu neex la nga jël ko mu naqat la nga jël ko te loolu kenn mucc ci kon nak ci démé nonu war nañu di am moyen di jëma dajalé xalé yi ku ne xam na ne fan yi ñu ci vacances xalé yu bari ñu ngi dem ci geejgi di lab xalé yu bari ñi ngi babi foot bi xale yu bari ñu ci internet bi xale yu bari ñu ci télé yi parce que am nañu jot te suñu wax proverbe bi ñuy wax toujours mom lañuy ñuy feddili te bëgg na ñëpp kol ko moy jox ngeen ñu li gëna cher jox ngeen ñu li gëna cher nit di ko am te li gëna a cher nit di ko am li gëna a cher nit di ko am mooy doom doom moo gën a cher mboolem lu yàlla di jox nit ci li ñuy tuddee teraanga àdduna gannaaw bu mu ko defee mu nekk jullit moo taxit nee na fi ma leen di nattu di leen fa jàpp toujours mooy doom yi yàlla di ko jox nit mooy doom waaye doom yooyu bu la ko yàlla joxee yan bu diis la la jox moo tax nee na fi ma leen di jàpp man yàlla mooy ci seeni doom innama amwaalukum wa awlaadukum fitna yàlla nee na doom dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy fitna doomu aadama comme ni alal dooyee fitna ci doomu aadam waaye ñu ngi ñaan yàlla yàlla dimbale ñu ñu man leen a yar un mois lañ né wara a ak ñom ko kóolute gi ngeen di am toujours di ñu jox xalé yi kóolute yo googu ma ngi ñaan man ak ñima ma àndat ñu de ko kóolute googu le ndax buñ ko yégué rek danañ def ni may def colonie bi may njëkk xey may mujj nelaw ma len di xee fajar loolu nak bëgg na encadrement bi yépp bayiko xel xam ne lu diis la lu metti la buy duggu buy jege si danaa ko waajal 3 mois ci ay ñaan ci ay toroxlu ci yalla ci delu ci yalla deug deug deug deug pour yalla bañ toroxal bañ gatchal ndax nit dafa fort te wóolute doomu aadama moom bu la wóoloo moom nit wóolu na la rek waaye bés bu confiance bi demee dara mënatu ko dellu si bu faddu dara mënu ko dellu seeti moo tax ma bëgg ñun ñëpp ñu jàppalante parent yi itam ñu dimbali ma ci yenn naf-naf yi xam ne fañ leen di yóbbu incha allah danañ def ba def luñ mënul danañ def ba def luñ mënul pour lu bégloo xale yi lu leen ci siraatal mustaqim lu delloo ci yàlla su ko defee ñoom itam ñi jàppale ndax dinaa euh, di wax ne su ma organisé wu doon ñaar du ma xam nit su ma amu doon daara mokkal alquran du ma xam nit su may organisé wu doon colonie du ma xam nit Les élèves qui ils sont tellement tellement tellement tellement tellement tellement tellement tellement attachés ci <laughs> da ngay dem ba vous da ngay da ngay mujj sax comprendre bi nga li temps bu de temps dire, <laughs> jur une semaine ji dootul gisati doom ji ba péncam yàlla te bi muy tossan doom ji boo ñëwoon di jël doom ji bu la mënee rey dana la dana la rey bi sallallahu alayhi wa sallam joxe na ci benn leçon ci saxaaba bi nga xam ne dafa xonni woon benn doomu picc xonni nag xam naa ñu di Dakar du ko xam maanaam xale doomu picc mu fekk ko ci tàgg mi dal di enlever ko yaa ji topp ko di ko ndiiraan fu waa ji yenu rek yaa ji topp ci fu yaay fu yenu rek waa ji topp yaa ji topp ci yéen di ko xool ba mu yàgg mu yërëm ko ne waaye ku méttital yaay ci doomam waa ji ne ko man mu ne ko delloo ko doomam mu daal di ko delloo picc mi xaw a naaw yaa ji dala ñëw téye ci mbagg mi naaw moom te laps de temps lay am moom muy une semaine kon nag loolu mën na ma comprendre loo attachement bi ni ñi am ci seen doom yi waaye lu ci mën a am rek li ma leen di defal ci ñoom mooy li gën a cher mooy l'islam l'islam boobu laa bëgg xale yi bu ñu delloo am yeneen melokaan am yeneen comportement waaye comportement yooyu la ngeen ñu si jàppale ñu dal di gën a góorgóorlu ak ñoom xam ne tey yar jafe na defar jafe na waaye damay wax toujours euh, danger yi ci géej gi su taxee nit ñi bàyyi géej kon jëni ku koy lekk te jëni ñu la ko fi yàlla defal danger yi ci kaw avion yi crash yi am yombal lal nañu tukki su ko nit ñi ragalee ñun la ko yàlla yombalal ñun la ko yàlla teg maa ngi ñaan yàlla nañ daan demee nga xam ne dañuy dem ci jàmm del si ci jàmm kenn du absenté yal nañu ko yàlla defalaatee noonu seeni sujjóot seeni ñaan maa ngi sakku ngeen boole ma ci boole ci njaboot gi bañ delloowaat leen ci jàmm ak salaam di gërëmaat parents yi yëpp jarul jaar ci tur ndax day gën a gudd parents yi yëpp ancien yi ak anciennes yi ak nouveau ak nouvelle yi ñom ñep ñu ngi leen di beral ngëneel ngërëmande di geureum senalek Bel mi nga xamne du épargner ben effort bu mu am pour lu jaral colonie bi ci yoon la ko dalé ci charno Omar kan ñewul waya xamna naa ne bu ñewul rek amna tiq-tiq ku démé ni Ba Badou Euh, structure yi ne ci Senelec yëpp lu demee ni volet social bi di Amadou Mati jaar na fi léegi ci suba bëggoon a fekkee départ bi waaye ne dafa am ay tiq-tiq wax na itam joxe na ay ndigal ne lépp loo xam ne colonie war na ko soxla te Senelec man ko na ko def incha allah Mayacine Ba woo na ma barki démb ne ma dajaleel nañu lu mat cent moustiquaires yoo xam ne pour xale yi. Ah, di nekk ci moustiquaire waaye xam nga xale yi dañu dëgër bopp léeg-léeg da ngay defar moustiquaire génn dem ñu ne dafa tàng vraiment métti na waaye yàlla baax na yàlla baax na ah, jox nañu cent moustiquaire nee na bu ñu àggee itam infirmière mière bi nga xam ne mooy nekk toujours ak xale yi na def list lim soxla ci médicament lim soxla ci garab yépp ñu def ko dotation andil ñu ko daaw une valeur de trois cent dix mille la ñu andil ci ay ay ay médicaments. ba loolu dimbale woon nañu bu baax a baax a baax di gërëm ñëpp di ñaan yàlla lii yan di jëmme yàlla rek parents yi nga xam ne ñu ngi ma topp ba seen doom yi nekkee primaire ba tey ñu nekk université di jàng bàyyiwuñ colonie bi ñoo ñit xale yooyu maa ngi leen di feddlil sama coloré di leen feddlil sama yaakaar ci ñoom xam na ñoom ñoo war a yore ji réew mi ëllëg.

mënoon nañu choisir leneen waaye tous ñu ngi ànd ak man rek fas yéene ñuy liggéeyal yàlla te buñ demee ci colonie ba dañ ci jàpp ci lépp loo xam ne mën nañ ko loolu lu ama am solo la parents yi yëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla parent yëpp maa ngi leen di gërëm confiance bi ngeen am ci man maa ngi ñaan confiance bu chaque année chaque jour chaque instant chaque moment ngeen di ko gis ci ñun ndax confiance rek la doomu aadamaam bu ko xasee ñàkk-ñàkk na lépp yàlla mi ñuy jaamu sax suñ diggantee moom confiance rek la wóolu nañ ne moo de yàlla moom xam na ne moo de yàlla wóolu nañ ne manu manuñu wóolu nañ ne man na boobu boobu confiance rek moo ñuy liyee ak yàlla amul lenn luñ koy jëriñ moom yàlla duñ julli mu àgg ci moom mënuñ ko jox lekk mënuñ ko jox naan waaye ci jaamu ñu ci lañ mën a œuvre maa ngi gërëm ñëpp maa ngi ziyaare ñëpp kon départ nañ xaaraa inshallah ngeen di dimbale ci portable yi ah li nga kan xam ne téléphone rek ndeysaan ndeysaan waaye li ma ci jaaxal li ma ci jaaxal li ma ci jaaxal bu téléphone bu bu bu et bu ko ki colonie bi jeexee téléphone yi day néew lool lool lool lool lool lool lool bu ko defee mala la waaw mais ñii man lañ bëgg wala seen doomi lañ bëgg <laughs> est ce que ñii man lañ bëgg wala sama doom seen doomi lañ bëgg voilà ku man ngeen bëgg ndax su ngeen bëgg noonu ngeen seen doomi yi maa ngi gërëm ñëpp maa ngi ziare ñëpp di ñaanal yalla ñëpp yalla yalla barkel colonie bi moo amaat beneen aspect bu ci am ren lolit moy colonie ñaan dem yëpp dan nañ fa fekk nit ñu bax lool dan nañ fa fekk walisi bi bax lool waye ren dafa am benen aspect muy suñu imam bu bax di suñu wóolëre bu bax di borom xam-xam bu yaat di ku bëgg diina ba nga ne defna tey Sandiara ak la wër Sandiara il est devenu incontournable te dara mayu ko ko lu mooy jikkoom ju baax muy imam kamara ba ma ko ne Sandiara la daf ne maa ngi sant yàlla ci ñëw gi nga ñëw Sandiara fi mu ne nii autorité yi nga xam ne ñooy mairie ba ñu ñuy xaar pour euh, recevoir ñu ci lycée ba kon loolu beneen départ la boo xam ne ñu ngi ciy gën a am yaakaar ndax lu mel nii autorité autorité dañ ci war a dugal seen i loxo boo gisee réew du dem. am jafé jafé autorité liñ wara dimbalé duñ ko dimbalé fiñ wara duggal seen dimbal duñ fa duggal seen dimbal ci ay fokk ay tiaxan ak ay ken xamul ci lañu duggal seen alal yaakar né lolu mëna défar réew may dañu nax seen bok kon nak autorité yoyu nara ñew bokk ñun colonie bi ak ñun ah, ñu ngi leen ci gërëm bu baax te lolu yépp imam kamara moko def soxna si mu ngi tuddu maa jigéen Njaay ren la soog dugg ci colonie bi Euh, bi mu may bi euh, fiche bi nee ñaari baat ñaari baat moo ko xaw a kii ko waxee euh, dans un cadre agréable xama dal non agréable bobu mu ne qu'est-ce que cela veut dire agréable ak dans wax dal ay kee mané ko ko bo baax na la wax sama credo bi mooy dinaa len jox na li jox ma li gëna cher ma jox len li gëna cher ci ñoom muy diina yàlla def imam Camara mi di sëriñam di papaam di wóolóoram di lépp mu ne ko ah, ndax xam nga imaam jànq mu ne ko indil say doom indil say doom bul bul incité imaam jànq xam nga ko indil say doom ma ne ah imaam dugg na nag comme bu ñu ne imaam jànq rek nañ ko jox alal nit ñu joxe alal imaam jànq ne nañ ko jox doom nit ñi indi seen doom kon imaam jànq xam na problème problème boobu nag ak confiance boobu nag yàlla bu mu tas yaa rabbi yaa rabbal alamin ñu ngi gërëm waa Sandiara demaguñu te loolu yëpp suñu jarbaat docteur Cheikh Tidiane Sall ma nga xam ne moom la fa yàlla may soxna mu dee déggoog dëkk ba di jàppalanteeg ñoom ba xëy moom itam nekk un homme incontournable jaxasoog ñëpp ñoo loolu sant yàlla la ndax bu fa wanewoon beneen melokaan su ma fa bëggee dara di nijaayam du yomb kon nag ñu ngi gërëm ñëpp di ñëpp nañ di indi xale yi ci colonie bi bu ñu am lu ñuy ragal bu leen ragal dara incha allah lépp lu ñu def ngir jëmm yàlla bu mu ko ragal yàlla dinañu jàppale danañu dimbale dana àgg ci jàmm ak salaam incha allah bu ñu demee ba ca collectif bay dinañ ñëpp ñëw mayu ma ren kenn kenn kenn kenn des. ndax dañ ko peut-être mu le président Macky Sall peut-être mu gouvernement ñu ay nit ñoo Nous lañ ñu ngi lu te gisun dërëm gisun dara te yaakaaruñ ci kenn ku ndimbalal yalla aqulu qawli hada ñu benen bi moy depuis la naissance de la colonie Nous taala ñoko daan bok rahimahullah yan nako yalla yan nako yal na ko yàlla jéggal moom suñu jarbaal loon suñu taalibe loon suñu wólëri woon comme ni gorom mel di Bachir Dieye ndax ñoom seen papa moo ma njëkk a jox confiance muy imam Ahmed Dieye mi nga xam ne moo doon goro Talla Seck moo ko mayoon doom mu di séy moom Ahmed moomu imam boobu daaw def na lu yéeme parce que daaw bi soxnaam doomam bi bëggee soxna ci xale yi nekkoon ci colonie bi pas colonie bi mais ña fa doon def stage ca centre ba kuñ naan ndey mëti ba mu ko ne man di am na ku ma bëgg waxtaan naa ci imaam mu ne ko duma ñëw du ma yebal imaam na la takkali jabar mooy seen mag mooy seen nijaay mooy seen lépp yàlla dimbale ma ca colonie bi tas rek ma àgg ca goroom waxtaan ak moom mu ne waaye dafa jàmp imaam nangam man naan def ma ne ko du ma fi jógee ko te mayoo ma jabar ñu wax wax dem na ne ko mukk duma fi jege ko te mayoo ma jabar mu ne ma yow kenn mun la gàntu ndeysaan yeble ca ca yaay ja yaay ja ne ko def ko moom itam ndeysaan dafa gaañu suñ goro boobu ñu ngi koy jaalee di ko ñaanal yàlla taala nag ñun nuñ ko fay dañ koy bàyyi ak yàlla moo tax itam ren soxnaam bi nga xam ne mooy oustaz Khady Dieye moo war a nekk xale yu jigéen yi di jàppalante ñoom ak beneen yaay Seyda boo xam ne dana gën a mën a jàppalante ñoom ndax miir nañ ci éducation miir nañ ci yar te ñi ñuy ànd tey am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci puberté te xam nga yëfi jigéen moom dafa xaw doy waar waaye waala kulli xaalin ñu ngi gërëm taala di ko ñaanal yàlla di ko xare di ko ñaanal yàlla yan na koy la xaral janna comme jëm yan na ko gënal fi mu bàyyeekoo njabootam doomam ay mbokkam yan na leen yalla wuutu ci euh, ca fam daan fam taxawoon man mi ne yëg naa demam lool ndax yu bari ci yi daanoon man moom moo ko moom moo ko daan defal waaye comme Ahmed Bachir ñëw na moom booy boo xam ne ren moom dana sonn incha allah yal na yàlla barke lépp yal na yàlla sàmm yàlla bu kenn feebar yàlla bu kenn def lu mag la ñun ñëpp ñu dellu saat ci jàmm ak salaam yàlla mën na ko seen confiance na gën a dal woote bi xaw ko jar incha allah téléphone bi xaw ko jar incha allah lu ngeen añee xaw ko jar incha allah lu ngeen reeree xaw ko jar incha allah lu ngeen xaw ko jar allah ndax sangu ngeen jaru ko incha allah sangu dana am ndékki dana am mango dana am yëpp dana am incha allah kon nag loolu moom am nañu may du baaraam ñu góorgóorlu ci baax ba baax a baax sallallahu alayhi wa sallam walakin akthar nas la ya'lamun wa salaamu alaykum wa rahmatullah bu fekkee ne parents am na ci ku ciy wax.